الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي سانتار سني بروم سبحانه وتعالى ci lim ñu wërsëgal ñu dajewaat ci ab néegam fas yéene jël benn bind ci la nga xam ne moo aju ci diineem ñuy sukkandikoo ci téere bii di risaala bu ibnu abi zayd al xayrawaani rahimahullah ñu yegsi woon ci ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom benn muy baabun fi zakatil maashiya ñaar fukkeelu bunt ak juróom benn baabun fi zakatil maashiya bu dee mbokk yi gis nañ ko kon incha allah day wax fii rek ni wa zakatul ibili wal baqari wal ghanami faridatun génne zakat ca giléem ya génne zakat ca nag ya génne ko ca jurug gu ndaw ga muy gàtt ya na doon ay bëy lañu wala ay xar loolu moom farata la wala zakata min al ibili fi aqalli min xamsi zawd wa hiya xamsun min al ibil mu ni la nga xamee ne nii mooy zakat ca juruga day ca giléem ya day nekk ci juróom yoo xam ne nii ci giléem yi lañ bokk mi ngi noonu ñu koy wax zawdu mooy na doon góor lañu wala ay jigéen wa fiha shaatun jaz'atun aw saniyatun min julli ghanami ahli dhalika al balad mu ne su boobaa ki am juróomi giléem benn gàtt lay génne boo xam ne jazaa la lu ëpp ci borom xam-xam yi dañ naan mooy bu am at aw saniya wala boo xam ne dugg na ca ñaareelu at ba ba am bëñ yi sax ca kanam ca la ëpp ca la waa dëkk ba di jëfandikoo ci jur gu ndaw gi min daanin aw mazin na doon loole dafa doon ay xar lañu wala ay bëy ila tisin ba baa ngay am juróom ñeenti giléem summa fi l ashri shaataani ila arbaata achar ki am fukki giléem ñaari gàtt lay génne ba baa ngay am fukki giléem ak ñeent ñun ñëpp ñaari gàtt ngay génne summa fi xamsati achra salaasatu chiya gannaaw bi ki am fukki giléem ak juróom génne ñetti gàtt ila tisata achar ba baa muy am fukki giléem ak juróom-ñeent fa ida kaanat ishrin fa arbau shiyaa su amee ñaar fukki giléem day génne ñeenti gàtt ila arbai wa ishrin ba baa muy am ñaar fukk ak ñeent du tey ñeenti gàtt rek lay génne summa fi xamsatin wa ishrin su demee nag ba am ñaar fukk ak juróom ci giléem bintu bintu maxaad day génne giléem gu jigéen goo xam ne dañ koy tuddee doomu ko ëmb wahiya bintu sanatayni te mooy giléem gu ndaw goo xam ne am na ñaari at fa in lam takun fiha fa ibnu labun su dee amul ci juróom ga giléem gu jigéen bu am ñaari at ñu indi li ñuy tuddee ibnu labun mooy koo xam ne yaayam na ngay nampal zakar muy bu góor ila xamsin wa salasin ba baa muy am fanweer ak juróom ci ay giléem gannaaw ba nag summa fii sittin wa salasin bintu labun heure bu amee fanweer ak juróom benn mu daal di indi bintu labun mooy ji giléem bu jigéen wa hiya bintu salaasi sinin bu am ñetti at ila xamsin wa arbain ba baa muy am ñeent fukk ak juróom ci ay giléem du tey boobu lay génne summa fi sittin wa arbaina xiqa su demee ba am nag ñeen fukk ak juróom benn ci ay gileem mu génne lu ñu tudde xiqa wa hiya lati yuslahu ala zahriha mooy alxaml mooy gileem goo xam ne mënees na koo sëf wa yatruquha alfahl te it mënees na koo tëb la nga xam ne mooy gileem yu mag yu góor ya wa hiya bintu arba'i sinin ila sinin te mooy boo xam ne am na ñeenti at ila sittiin ba baa muy am na juróom benn fukki gileem su ma fi ihda wa sittiin jazaa su demee nag ba am juróom benn fukk ak benn mu indi jazaa wa hiya bintu xamsin sinin te mooy boo xam ne am na juróomi at ci gilim yu jigéen ñi ila xamsin wa sab'in ba baa muy am na juróom ñaar fukk ak juróom loolu rek lay génne su ma fi sittin wa sab'in binta labunin su demee nag ba am juróom benn fukki gileem ak juróom ñaar juróom benn fukk bu am juróom ñaar fukki gileem ak juróom benn sittin wa sab'in juróom ñaar fukki juróom benn binta labunin ca lay nag doog a génne la nga xam ne mooy ñaari doom yoo xam ne nii yu jigéen lay doon yoo xam ne nii yegg nañ ci ñetti at ya ila tis'in ba baa muy am juróom ñeent fukki gileem ñaar yooyu lay génne su demee ba am tis'in muy juróom ñeent fukk suma fi ihda wa wa tis'in gannaaw ba mu amee juróom ñeent fukk ak benn xeqataan mu jël ñaari xeqataan moom la ñu waxoon sànq mooy boo xam ne mënees na koo tëb ila ishrina wa miya ba baa muy am ñaar fukk ba muy am téeméeri giléem ak ñaar fukki giléem fa ma zaada su demee nag ba romb téeméeri giléem ak ñaar fukki giléem fa ma zaada ala zalik fa fi kulli xamsin xiqa heure bu amee tey juróom fukki giléem day génne giléem bu ñu tuddee xiqa mooy boo xam ne nii am na ñeenti at ñu mën koo sëf wa fi kullin arbaina bintu labuun ci bun ñeen fukk yu nekk mu génneel ko li ñuy tudde bintu labuun mooy boo xam ne nii dem na ci ñetti at boo xam ne bu jigéen la mbokk li ñuy wax dana néew ci ñun ñu ko mën a suivre topp téere bi moom ci yóbbu te it dana am ñoo xam ne dañu soxla baat yi ci arab buñ ko bëggee xóotal seenum njàng bëgg ca laayi biir keneen loolu moo tax bu doonte ni liñ lay tënkal ci li ñu jot a wax xamal ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa farataal ci ñi am àq boo xam ni dañ koo war a jox miskin yi da ngay dem ci dëkk boo xam ni la ëpp ci dëkk bi seen liggéey mooy sàmm bari na lool léeg-léeg suñu mbokki pël yi mu am te ñu am alal yàlla dafay faqir looloo tax suñu borom tëral zakat boo xam ne ñi am dañ koy génne jox ko ñi ñàkk bu dee zakatu giléem bala ngaa génne zakat da ngay am juróomi giléem ki am juróomi giléem rek zakat war na na doon giléem yi dañoo mag dañoo ndaw ay góor lañu am jigéen borom ñeenti gileem dara waru ko soo amee juróomi gileem dañ naan la xoolal sa dëkk luñ fiy gën a jëfandikoo xar ak béy bu dee Sénégal la chaque ne xar la ñuy gën a jëfandikoo ñu ne la kon demal jël benn xar boo xam ne mat na tabaski nga jox ko faqir yi muy seen wàll ci jur googu la yàlla wërsëgal ki am juróomi gileem ak ki am juróom-ñeenti gileem ñoo yem benn xar la ñuy génn waa ji am fukki giléem nag ñu ne ko yow génneel ñaari xar ki am fukki giléem ak juróom ñu ne ko génneel ñetti xar ki am ñaar fukki giléem ñu ne ko génneel ñeenti xar kon ki am ñaar fukki giléem ba baa ñaar fukki giléem ak ñeent ñoom ñépp duñ génne zakatu giléem te loolu it ci yombal gu yàlla yombal la ay xar la ñuy génne ñeenti xar soo demee nag ba dugg ci am ñaar fukki giléem ak juróom su boobaa nag lañ naan da jëlal benn giléem boo xam ne am na ñaari at nga sarxe muy zakat bi benn giléem boobee mooy valable dégg ngeen ci détail bi bëgguñu ci dellu mooy valable di valable ba baa ngay am soixante-seize giléem kon ki am ñaar fukki giléem ak juróom ak ki am soixante-quinze giléem ñoom ñëpp ku nekk benn gileem ngay génn dana varier nag ci at yi selon nombre bi ni mu toll soo demee nag ba am juróom ñaar fukki gileem ak juróom benn su boobaa nag ngay doog a génne ñaari gileem yoo xam ne bu ne am na ñetti at boo demee ba loolee dem ba passé loolu su ko defee nag ñu doog la wax ne xoolal sa jur gi léegi comme yow am nga lu ëpp téeméeri gileem ak ñaar fukk léegi li ñuy def mooy juróom fukki gileem yu nekk da nga ko génneel gileem gu am ñeenti at ñeen fukki gileem yi yu nekk nga génneel ko gileem gu am ñetti at ci gàttal mbokk lii mooy la nga xam ne moom mooy en zakatu gileem donte ne ni dana gën a itteel la nga xam ne mooy waa Mauritanie ak ñu demee noonu lii nag mbokk mooy ñeel ñu yor ak gileem di leen yar di leen sàmm di leen jëfandikoo bokkul ak waa da nga xam ni dafay dem di jënd gileem di jaayaat ñu ngi nar a jàng léegi zakkaatu nag xar zakkaat bañ ca nar a wax mooy ñaka moom di ko sàmm amma bu dee yow sa liggéey mooy di jëndi ay nag di jaay su boobaa kenn du la wax génneel zakkaat ci gileem yi wala ci nag yi waaye dañuy xool valeur bi nga xam ne moom ngay jënde tey yaa ngeeg dix millions yoo xam ne jënde nga ko ay nag su boobaa boo ci liggéey di ci liggéey ba moom un an dañ koy génne ni ñuy génne zakatu commerce te boobaa alal ji dañ koy diviser quarante fois lii mbokk moo aju ci zakat bi nga xam ne mooy zakatu giléem bunt bi ci topp mooy zakatu nag falilahi alhamdu Sénégal moom yàlla def na fi ñoo xam ne ci pël yi ak lenn suñu mbokk saalum saalum yi ñoo xam ne zakkaatu nag moom war na leen su dee yaa ngi jël sa téere mu ne wala zakata fil baqar zakkaat day du war ci nag fi aqalla min salasin ci lu gën a néew fanweeri nag fa ida balagatha su demee ba jot lim boobee fa fiiha tabiun su boobaa da ngay génne luy toppe ijlun jazaun qad awfa sanatayn te mooy sëll boo xamee ni nii day doon boo xam ne bu góor la bu am ñaari at summa kazalik gannaaw ba naka noonu xatta tabluga arbain ba baa ngi am ñeen fukki giléem ñeen fukki nag fa yakuna fiha musinna soo amee ñeen fukki nag nag da ngay génne la nga xam ne mooy musinna wala mooy boo xam ne dem na moom ba nekk ca ñetti at ya wala tuqaz illa unsa duñ jël nag ci boobaa lu dul gileem bu lu dul nag bu jigéen wa hiya bintu arba'i sinin wa hiya saniya ca mooy boo xam ne dem na ba am ñeenti at mi ngi noonu wa hiya saniya dañ koy wax bu dugg ci ay at di ko wax it boo xam ne sax na ay bëñ fa ma zaada fa fi kulli arbaina musinna su dee ne nag romb na foofu yépp ñeen fukki gileem yu nekk dañ koy génneel la nga xam ne mooy musinna wa fi kulli salaasin tabiun mooy ñeen fukki gileem yu nekk nga génneel ko boo xam ne nii dem na ba ñeent ñeent fukki nag yu ne nga génneel ko bu am ñeenti at fanweeri giléem bu ne nga génneel ko boo xam ne romb na ñaari at mbokk noonu ngeen ko déggee noonu la demee kon mooy ki nga xam ne daa am ay nagam nag yooyee gis nañu mi ngi koy sàmm ba mu am at bi mu xoolee nag yi nag yi nekk fanweeri nag na doon yu mag yu ndaw mat na fanweeri nag su boobaa dañ naan ko xool ci nag bu góor bu am ñaari at nga génne ko jox ko miskin yi mi ngi noonu su dee ne nag dafa am ñeen fukki nag su boobaa ñu ne ko xoolal benn nag bu jigéen boo xamee ne nii dana am ñeenti at nga sarax ko miskin yi te xam ngeen ni ci jur gi bu dee ay tabaski góor yi ñooy gën a jar waaye bu dee ci àll bi ci yar nag bu jigéen xar bu jigéen moo ëpp valeur ndax moom mooy la nga xam ne mooy jur bu dee ne nag ya daa bari it li ñuy xool quarante yu ne ñu génneel ko boo xam ne am na ñeenti at bu jigéen fanweer bu ne ñu génneel ko bu am ñaari at yu jigéen loolu moo aju ci la nga xam ne nii moom mooy zakatu nag su ko defee ci am 70 nag ñaar lay génne noonu lay demee kañ lay mën a génnewaat il faut mu dem ba am 100 su ko defee mu am bu 40 bu muy génne ak 30 30 noonu la zakatu nag bi demee suñu paasee nag yi mu ñëw ci zakatu jur gu ndaw ji mu ne wala zakata fil ghanam kenn du jël zakat ci jur gu ndaw gi muy xar ak bëy xatta tabluga arbaina shaa lu dul mu mat ñeen fukki gàtt fa ida balagat balagatha fa fiha shaatun jazatun aw saniya su boobaa dañ cay jël benn gàtt boo xam ne dañ koy tuddee jazaa muy am kuuy moo xam ne dana dugg ca at atam aw saniya wala mu dugg ci ñaareelu atam benn gàtt boobu ngay génne ila ishrina wa mia fa baa ngay am téeméeri xar ak ñaar fukki xar fa ida balagat ihda wa ishrina wa mia soo demee nag ba mat téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay gàtt fa fiiha shaataani ngay doog a génne ñaari gàtt ila miatay sha ba baa ngay am nag ñaari téeméeri gàtt fa ida zaadat su rombee ñaari téeméeri gàtt shaatan waxida benn gàtt kese fa fiiha salaasu shiya su boobaa ñetti gàtt lay génne ila salaasi miati ba baa muy yegg ñetti téeméeri gàtt fa ma zaada su rombee foofu nag fa fi kulli miatin sha téeméer bu nekk ñu génneel ko benn gàtt mbokk ki nga xam ne daa yor ay gàtt xar ak bëy bu ñuy génne zakat lépp la ñuy boole compté tey compté nañ gis ne am na fi fanweeri xar ak fukki béy wala ñaar fukki xar ñaar fukki béy su boobaa dañ naan zakat war na la ki doon sàmm am fanweeri xar ak juróom-ñeent ku mel noonu zakat waru ko ci lislaam amma bu ma tee ñeent fukk su boobaa zakat war na la loo cay génne mooy benn kuuy ngay génne boo xam ne mat na at zakat boobu borom ñiin fukk yi di génne borom juróom benn fukk moom lay génne téeméer moom lay génne téeméer ak ak ñaar fukk moom lay génne ki am ñiin fukki xar ak ki am téeméeri xar ak ñaar fukki xar benn zakat lay génne looloo tax dañu naan affaire zakat yi day tudde masailu taabudiya mbir la boo xam ni li yàlla wax rek la ñuy def mais xel mënu ko juger parce que bu doon xelu doomu aadama du mën a comprendre loolu ki am ñeen fukki xar ki am téeméeri xar ak ñaan fukki xar ëppale ngeen ni yow génneel kuy kii génneel kuy loolu la yàlla tëral xikma ba xamuñu lu tax amma nag waa ji am téeméeri xar ak ñaar fukk ak benn bu tegee benn xar rek tey jii masalan bu doon jamono ji ñuy dajale zakkaat yi wala yow mi war a génne sa zakkaat jàpp nga ne tey kat man bis bu jëkk bu nekk ci tam xarit wala ci koor damay génne zakatu jur gi amoo lu dul téeméeri xar ak ñaar fukki xar ñu dem ba ci guddi gi benn xar jur soo xëyee suba kon dañ naan am nga téeméeri xar ak ñaar fukki xar ak benn ñu ne waaw ñu ne kon ñaari gàtt ngay génne maadaama romb nga limite cent vingt bi dugg nga cent vingt et un ñaari gàtt ngay génne loolu mooy valable ba baa ngay am deux cent xar ki am ñaar téeméeri xar ak ñaar fukk ak benn ak ki am ñaari téeméeri xar ñoo yem ñaari gàtt la ñuy génne su dee ne nag loolee passé na ba baa dugg ca la nga xam ne nii moom mooy romb na benn xar rek su boobaa da ngay génne ñett ci ay xar mooy ki am deux cent un ci ay xar wala deux cent un ci xar ak bëy ku mel noonu ñetti xar lay génne ñetti xar deux cent un ñetti xar lay génne wax naa la sànq ki am cent vingt xar benn lay génne ngi noonu léegi nag bu dee dem nga ba romb mooy ki am deux cent un ba ba trois cent ñetti xar la ñuy génne ki am deux cent un xar ba trois cent xar ñoo yem ñetti xar la ñuy génne su dee nag xar ya dem na ba passé trois cent su boobaa luñ lay wax xoolal foo amee cent rek génneel benn xar quatre cent quatre xar cinq cent cinq xar tant que mutul cent nag xar du la war te bu dee ne zakat or biñ doon jàng dimanche passé ak zakatu marchandise loolee li nekk ci diggante bi dañ koy considérer masalan tey buñ ne woon ki am nisaab cinq cent mille mooy war a génne zakat yow nga am six cent mille ndax dañ naan la cinq cent mille yi rek ngay génne déedéet cent mille bu ci topp dañ koy génne zakat amma loolu nag amul ci ak jur amul ci jur looloo tax zakatu xar bi mi ngi commencé quarante benn xar ba ba cent vingt loolee kon da ngay gis ne diggante quarante ba cent vingt loolu day mel ni lu fa amul woon kenn du ko considéré ci zakat moom la ñuy tudd awqaas loolu kenn du ko sóoraale ci loolu loolu nag atte la boo xam ne suñu boroom mooy atte lu ko neex ci diinim ci bu dee ne yaa ngi topp téere bi mu ne wala zakata fil awqaas zakat du am ca la nga xamee ni mooy li nekk ci diggante bi mooy li ñu doon li ma la doon wax sànq wa hiya ma bayna al faridatayn mooy li nekk ci diggante ñaari farata yi min kullil an'am ci mboolem jur yi ñu la yi ñu la wax wa yujma'u da'nu wal ma'zu wal wal ma'zu fi zakat heure bu ñuy génne zakat xar ya ak bëy ya la ñuy boole compter wal jawamis wal baqar la nga xamee ne mooy dañuy tudde bif lii mooy nagu àll yi ak la nga xam ne mooy nag ya dañ koy considérer zakat bu dee da nga koo yar wal buxtu wal irab buxtu mooy la nga xam ne moom mooy giléem gu am ñaari bos moom la ñu gën a bëri wax mi ngi noonu bu am ñaari bos mooy awal irab mooy giléem yi nga xam ne moom benn jigéen rek la am muy benn bos rek la am yooyu yépp dañ koy boole di ko limaale benn zakat mi ngi noonu mu ne wa kullu xalitayni fa innahuma yataraddaani baynahuma bi sawiya ñépp ñoo xam ne dañoo booloo day dañuy delloonte ci ak yemoo wala zakata ala man lam tablug xissatuhu adad zakat doonte ne zakat du war ci koo xam ni cëram ca jur ga matul zakat kon mbokk lii dalay jàngal liñ doon wax sànq mooy li nekk ci diggante ñaari farata loolee kenn du ko génne zakat ki am ñeen fukki xar ak ki am téeméeri xar ak ñaar fukk ñoo yem duñ génne zakat lu dul benn xar amma ki am téeméeri xar ak ñaar fukk ak benn kooku mooy génne ñaari zakat mooy ñaari xar mooy génne ñaari xar gannaaw ba nag la la wax ni jur gi nga xam ne dañu nuroo moom la ñuy boole génne leen zakat loolu la wax xar ak bëy wax la ko ci nag yi nga xam ne nag yi àll yeeg nag yi yi ngeen xam ci kër gi moom lay waxit ca la nga xam ne mooy façon gilim yi ak lu ñu wuute wuute mu des lu ñuy tuddee xarita yi tey jii man dama am ñeen fukki xar léegi yow nga am ñeen fukki xar ñu bokk benn sàmm buñ ko jox ñu bokk fenn fu ñuy fanaan kiy jël ci zakat moom bu ñëwee moom gitt gi lay évaluer du laaj kii moom moom léegi moomul léegi bu ñu évaluer gitt gi benn gàtt moo ci war wax naa la sànq ne tànk rombul téeméer ñaar fukk benn gàtt ci raw moo ci moo ci war benn gàtt boobee ca war su ko defee ña nga xam ne ñoo bokk jur gi ca ku nekk waroon a génnee zakat loolu seen bénéfice lay doon su ko defee dañuy séddoo njëgu gàtt boobee nga xam ne moom la ñuy génne ca zakat boobee loolu kon lay wax ci wàllu ko loolu moo tax mu ne booy xoolaat téere bi wala boog jiitu loolu mu ne nag loolu day fekk ne ñoom ñépp dañoo am nisaab bu ñu war a génne zakat waaye bu dee ne kenn ci ñoom amul nisaab su boobaa zakat ba du ko war zakat baa ngay war ka nga xam ni dafa am nisaab ca alal jooje loolu kon mi ngi noonu moo tax mu ne nag wala yufarraq kenn du teqale bayna mujtamiin la booloo woon ci zakat wala yujma kenn du boole bayna muftariqin la teqali ko woon xasiyata sadaqa ngir ragal zakat ba nga xamee ni nii moom moo cay am wa zalika ida qaruba alxawl ca loolu mooy bu dee ne dafa jege at ba ñu war a génne zakat ay temps ba فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما سودين بني تقل الجربي لولي دي وني زكاة بنت ورونا أم أو بإجتماعهما ولا بوك بولو غندون بولو زكاة بنا خميني موش ورونا أم دي ونيكو أخذ بما كان عليه قبل ذلك ديس نكو جل تلنا خمني تلنا نكون جيتو لورو ميغي نونو da ngay gis yi mbokk day wax fi rek ay cas mooy waa ji mi ngi génne si zakat yow am nga masalan même bu doon am nga cent xar mi ngi doon wala nga am tey soixante xar kay moom am moom it soixante xar ku nekk ci yéen zakat war na ko mu génne benn zakat mais su ngeen boolee xar yi bu ñu xoolee muy nekk cent vingt xar benn xar moo ci moo ciy war looloo tax ñu ne heure bi ñuy génne zakat ñoo xam ne seen jur boolewul woon kenn du leen ko boole kenn du ko boole ci ñoom loolu mi ngi noonu ci wàllu googee itamit la ñuy gis ni mën na doon loo xam ne nii luy mën a teqalee teqalee bañ koy teqalee itamit mën na doon loo xam ne nii luy wàññi valeuru zakat ba nga xam ne ci la ñu waroon a jël wax na la boo amee deux cent un xar ñetti gàtt ngay jël yéen ngeen am seen xar boole ko muy deux cent un xar ngeen xam ne waa ji jël zakat mi ngi ñëw ngeen teqale jur ji su boobaa bu ki amee cent xar ki am cent xar benn xar lay joxe kii joxe benn xar muy ñaari xar su boobaa au lieu de ñetti xar ñaari xar lay génn kon lépp loo xam ne buñ ko boolee zakat ba wàññeeku wala buñ ko teqalee zakat ba wàññeeku kay jël ci zakat bu yégee loolu dañ leen di facturer la nga xam ne moo amoon avant ñuy teqali ko te lii mooy jamono bi ñuy dajale zakat waaye bu dee ne nit ñi ñooy génneel seen bopp zakat loolu moom naxante la ak yàlla la ci jàpp na jurit warut naxante ak boromam loolu moo aju ci wàllu gu jëkk googu léegi nag mu ne wala tuuxazu fi sadaqa kenn du jël ci zakat asaxlata la nga xamee ne asaxlatu lii di mbote ya wa tuaddu ala rabbil ghanam doonte ne dees na ko limaali ci borom gàtt yi wala tuuxazu l ajajila fi lbaqar kenn du jëlit ay sëll ca la nga xamee ne nii mooy nag ya wala lfuslaana fi libil kenn du jëlit nag yu ndaw ya nga xam ne dañoo bokk ci gileem ya wa tuaddu alayhim doonte ne dees na ko compté waale ci ñoom wala yuuxadu taysun kenn du ñëw jël la nga xam ne mooy sikket bi gën a mag nga xam ne mooy tëb sikket yi ci des wala hërima kenn du jëlit loo xam ne dafa màgget ba amatul dara ci yàpp wala almaxi kenn du jël ci zakat jur goo xam ne daa ëmb wala fahlul xënam naka noonu kuuy bi nga xam ne mooy tëb gétt gi ci xar yi kenn du ko jël wala chaatul alaf jur ga nga xam ni dañ koo ber di ko yafal pour mu am prix bu fort kenn du ko jël wala latiitu rabbi wala daha duñ jëlit ba nga xam ni mooy nàmpal doomam mi ngi noonu wala xiyaara amwaali naas duñ jëlit la gën a tedd ci alalu nit ñi ca zakat ba wala yuuxasu fi zalika ardun kenn du jëlit ci zakatu jur la nga xam ne mooy am marchandise wala saman kenn du ci jël ay xaalis liquide fa in ajbarahu musaddiq ala aqsi saman bu dee ne nag kay jël ci zakat bi moo imposé borom bu jur ga ci jël prix fii fil an'am ca jur ga wa xayriha ak leneen lu dul jur ajzaahu insha allah loolee dana ko doy insha allah mu ne it wala yusqit du rotal mukk addaynu lii di bor ba waa ji amoon zakata xabbin lii di zakat ba ñu war a génn ca pepp ya wala tamrin wala ca tandarma ya wala maashiya wala ca jurga mi ngi noonu mbokk day wax fii ne waa ji génne zakat fi ngay war a génne zakat jot na tey boo xoolee amoo lu dul ñaar fukki xar yu mag yi ci des yépp ay mbota la mais bi nga ko wàññee mat nañ quarante su boobaa dañ naan la zakat war na la waaye ndax am nañ droit génne mbote ci zakat déedéet zakat dañ koy génne ci xar moo xam ne nii xar mu mag la bu mat tabaski wala bu mat a tëbu ci jigéen yi waaye kenn du ko génne ci ndaw ya loolu la lay wax ca nag ya loolu la lay wax ci gileem ya mu ne it bu dee ne waa ji jël si zakat du xool kuuy mi nga xam ni moo gën a mag na doon ca bëy ya la wala ca xar ya la mu koy jël bépp boo xam ne bu ëmb duñ ko jël bépp buy nampalit duñ ko jël bu ñuy jël zakat it duñ tànn ca jur ga gën a baax comme it duñ tànn ca jur ga gën a bon gannaaw ba itamit lay wax ne ki gën war a génne zakat ci ak juróom kookee duñ na ko ne génne leneen ci ay pepp wala ay yére wala ay yenn marchandise duñ ko waxit mu génne valeuru jur gi waaye jur lay génne loolu nag mooy li ëpp ci lu borom xam-xam yi wax donte ne am na yeneen mazahib moo mel ne mazhab ibnu xanifa moom nee na moom ñoom dañoo gis ne zakat njëriñu fuqaraaw yi la léegi lan moo gën a jëriñ faqir ci ñoom dañ naan su boobaa mënees na ko génne xaalis ndax tey ay faqir yi ni masalan lu mat ñaar fukki faqir ñu jël benn nag jox leen ko loolu day nekk benn problème kon ñu ne soo mënee am valeur xaalis bi jox leen ko loolu dana la doy donte ne ni la ëpp ci borom xam-xam yi rawatina mazhab malik ñoom dañ ne déedéet lii affaire yu jaamu yàlla la xoolal la nga xam ne mooy zakat bi yàlla wax nga jël ko jox leen ko ñoom ñu xam nuñ koy def mi ngi noonu te it loolu mën ngaa jël benn zakat gilim la nag a xaar jox ko kenn mën ngaa woo mbooloo yi mbooloo leen ko mi ngi noonu mu ni kon duñ jël xaalis ca la nga xam ne mooy zakat bi allahuma lu dul tey bu doon buur daa gis ne loolee nañ ko jël ci xaalis yow mii génne zakat ñu laaj la xaalis boo ko joxee it sa zakat moom teggeeku na la da ngi noonu donte ni ñoom ñu naan mënees na ko jël ci xaalis bokk na lu ñuy tegtaloo yenn ci ay xadis bokk na ci ko mel ni Muaz ibn Jabal ba mu demee Yemen daan jël ci waa Yemen yi seeni zakat ay dugub ak yooyu da leen doon wax jox leen ma valeur bi ci ay yére saxaaba yi yére lañ gën a soxla yu mel noonu ak yeneen xadis tax nañu wax loolu waaye li ëpp ci borom xam-xam yi ñoom li ma la wax lañ la wax léegi nag waa ji dafa am ak jur war a génne zakat waaye mi ngi ak ay bor ndax dañ naan ko comme am nga ay bor yow doo génne zakat bor yi mu ëpp sëg jur déedéet dañ ne loolu du jeexital ci zakatu jur waa ji bayoon toolam it naka noonu bay na toolam am na nisaab bu mu war a génne zakat ay bor gàddu na ci moom yoo xam ne bu ñu ko évalué woon moo ëpp sax tool bi ndax dañ naan ko comme da nga gàddu bor doo génne zakat dañ naan déedéet lii moom dañ koy tuddee alal yi feeñ faqiir yi tekki seen bët kon bu seen àq jotee na nga leen ko jox amma nag ba dee alal yi nëbbu ca mooy or ak xaalis ak yu demee noonu moom soo amee ay bor bor yooyee des na ko ca génne comme niñ ko jànge woon ci dimanche bi nga xam ne mooy dimanche bi passé loolu mbokk kon moo aju ci bunt bi nga xam ne nii jullit dafay xam ne lii di sa diine boroom jàngoo ko xam ko jëfewoo ko jëfewoo jëfe nga ko jëfewoo ko loolee ci tuyaab yi gën a rëy la bokk ci jaamu yàlla yi gën a rëy la bokk ci ëllëgit mën nga ci laay biir keneen Ibrahima doon na ñaan mooy waarina manasikana xamal ñu nañ lay jaamoo te it am fiq ci diine xam lépp lan la ci yàlla wax it même bu dee ne boo ko mos a jëfe sa dund loolu yi nañu xam ne ci buntu jaamu yàlla yi la bokk kon mi ngi noonu incha allah balaa ñu dem ci leneen ñu xool ba xam dana am mbokk yi laaj yi ñu doon laaj yu aju ci wàllu zakatu jur gi incha allah naam bismillah naam aleykum salaam ndax waa ji nga xam ne dafay am lu muy génne mën na koo rey di ko tasaare la nga xam ne moom mooy fuqaraaw yi ala kulli xaal loolee day mën na am xel mën koo nangu doonte ne gisuluñ ko dalil la nga xam ne mooy la gën a wér daal ca texte yi wax ko mooy da ngay génne zakat bi jox ko faqiir yi faqiir bi ci boppam su gisee ne moom da koy rey lekk mën na mu rey ko lekk su gisee ne moom da koy jaay faj ci soxlaam da koy jaay faj ci soxlaam su gisee ne da koy yar ngir moom mu jural ko geneen jur mu jox ko lii daal mooy la nga xam ne moom la ñu lislaam digal te boo bëggee dugg ci wàllu rey séddoo rek da nga fekki ña nga xam ne dañ naan mën nañ koy génne ci or ak xaalis waaye daal la gën a mucc ayib mooy génne ko jël ko teg ci loxo yi faqiir ñoom nag ñoo xam dañuy lekkam dañuy jaayam dañuy yar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam ndax ñi nga xam ni dañuy am ay ferme ci duñu sàmm seen ak jur ndax ñun dañ génne zakat mbokk loolu borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf xadis bay wax ci wàllu zakat lu ci bëri di wax as-saa'ima ya nga xam ne dañ koy yóbbu di sàmm loolu tax yenn fuqahaa yi dañ ne kiy génne zakat mooy kiy xëy suba jiital ak juróom ñuy lekk ci àll bi amma ki nga xam ne daa tëj ak juróom di jël alal di leen jox ci ci di leen xont ku mel noonu du génne zakat waaye nag mbokk jurit comme niñ ko waxee rek mooy ay masala heure bu ñu wuutee ci boromi xam-xam nga def la nga xam ne moo gën a dal xel moo gën te it la shakka ne xam nañ ne loolu moom moo gën ci fuqaraaw yi te it boo xoolee ñooñee am kattan ba mën a tij seenu jur ñooñu en général ñoo ëpp ay moyens ñiy xëy di sànni loolu daal kon la gën rek mooy li yonent bi alei salatu salaam ah waaw waaw waaw mi ngi wax kon ne koo xam ne am na lu mat cinq mille ba kookoy boo xooloon doon évaluer zakatam lam war a génne ci ay nag dana bari lool dana bari lool ndax li nga jàng sànq rek ne chaque trente nag war naa génne benn gàtt benn nag chaque quarante nag war na ko génneel nangam presque xaw ngaa mën a wax ne même boo ko doon diviser par quarante rek da ngay gis ne cinq mille diviser par cinquante loolu lu mu la jur cent mi ngi noonu boo ko diviser par quarante mu ëpp loolu kon kooku lu mu néew néew war naa génn lu jege cent vingt nag par an loolee kon dañuy gis ne daal la gën a mucc ayib mooy da ngay sàmmeem da ngay tëj mooy nga génne zakat bi loolu mooy la gën a mucc ayib wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk bi waaw waaw alayhi salaam wa barakaatu naam
xar ak béy mu génnee béy parce que valeur xar ak béy dafa wuute lool fii
ndax ki am xar ak béy ndax am na droit génne béy ki am xar ak béy yépp lum ca génne loolee lu baax la doonte ne ñaari kaa mooy am kaa ñi daan jël ci zakat su boobaa kay jël ci zakat mooy xool jur gi ni mu tëddee ndax béy yee ëpp wala xar yee ëpp xool la nga xam ne moo ci digg doomu ndax am na béy boo xam ne mën na ëpp valeur xar su ko defee kooku mooy xool loolu amma nag bu dee yow yaay génnee sa zakatu bopp suñu borom mu ne wa man tatawwa xayran fa huwa xayrun la ku coobeerewu ci lu yiw looloo gën ci yow su ko defee yaay xool la nga xam ne jàpp nga ne daal lii mooy la gën nga jël ko daal di koy génnee waaye mbir bi moom xarak ba yépp lu nekk mënees na koo génnee ci zakat mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon ñu ñu ñu yeggalee buntu zakatul fitr kon mu ni wa zakatul fitr bu dee ne nag zakat bi nga xam ne dañ koy génne bu ñu wooree ba pare sunnatun waajiba sunna la boo xam ne bu war faradaha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi alayhi salatu wasalaam moo ko farataal ala kulli kabirin aw sagirin zakarin aw unsa ci koo képp koo xam ne góor la wala jigéen mag la wala ndaw la ah xurrun aw abdin min al muslimin gor la jaam la ci jurit ñi loolee moo ko farataal saan an kulli nafsin mooy saa tollu deux kilos et quelque wala ci bépp bakkan bi saa i nabi sallallahu alayhi wa sallam te nattukaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu mag ñi fi daan ko gën a bëri wax ay àndaar aw aqit non sa wa tuadda dees na ko joxe min julli ayshi ahli zalika al balad te la ëpp ci la waa réew mi di dundee mi ngi noonu min burru burru benn genre dugub la tubaab yi dañ koy ay forma aw sha'ir wala la ñuy tuddee ay orge aw sult soriwul ak sha'ir boobee aw tamr mooy tàndarma aw aqit aqit moom mooy graisse mooy ci meew boo xam ne dañ koo def fromage mooy ba mu wow aw zabib mooy raisin aw doxli doxli boobu def na ko firi la nga xam ne mooy ay mboq mi ngi noonu am na ñu koy koy sorgo aw mi ngi noonu zurra mooy doxnu moom mooy pepp bu ndaw bi zurra moom mooy li ñuy tuddee sorgo wala ay mboq aw urus wala la nga xam ne nii mooy ay ceeb wa lii lépp boo ko xoolee mooy wàllu dugub yi rek wa qiila des na wax in kaana al alas quwata qawmin su dee pepp bu ñuy tuddee alas mi ngi noonu waa dëkk dañ koy tudde dañ koy dunde uxrijat minhu dañ ko cay génnee wa huwa xabbun saxir loolee pepp yu ndaw la yaqrabu min xilqatil burr dafa jege la nga xam ne moom mooy na burr mel mi ngi noonu mbokk ci gàttal lii mooy zakatul fitre boo xam ne su dee woor nañ ba koor gi jeex bala ñu julli ji képp kuy jullit mag ak ndaw góor ak jigéen dañu ko war a génnee lañ koy génnee mooy la ëpp ca waa dëkk ba di dunde su dee waa dëkk ba la ñuy ëpp dundee te bu doon ndakaaru la ko wër ceeb la man ngaa dem ci àll foo xam ne dugub la ñu daal di cay natt saa saa boobi loolee bu dee ci pepp yee daanaka ay deux kilos lay lay lay doon bu dee ci tàndarma mën na ëpp loolu mën na yées loolu ila axiri ca mooy la gënoon ci zakatul fitre mooy ñu koy natt bañ ko peser natt ko su ko defee allahuma lu dul nga xam poids ba la muy méngool mais bu dee yeneen yi yoo xam ne nii comme li mu wax fii lu mel ne meew yi ñu wayal wala yu yu demee noonu soo ci amee saa mooy benn nattu kenn ñett saa boobee jamono yi balance amul naka lañ ko daan xoole mooy dañuy jël nit koo xam ne ku digg doomu la ay loxoom rëyul lool tuutiwul lool mu tegale ay loxoom ñu chargé ko ba mu fees mu sotti loolu mooy mudd bu ko defee ba muy quatre fois loolu la ñuy tuddee saa moom la ñuy génneel bopp bu nekk mi ngi noonu su ne da ngay jël jël beneen bind bi mu ne wa yuxraju an il abdi sayda sayduhu jaam sangam moo ko koy génneel wa saxiiru laa maala lahu yuxraju anhu waariduhu xale bi amul alal waajuram moo koy génneel wa yuxraju rajulu zakat alfitri an kulli muslimin talzamuhu nafaqatu góor day génne zakatul fitre muy murum koor ci képp koo xam ne dundam da koo war li nga noonu say waajur yi amatul dara say jarbaat yi nga yor ci kër ga ci yaa leen di dundal ila axiri wa an makaatibihi dana ko génne dit que su ñeenteeg moom bëgg a gore ca njaam ga ca matalagul wa in kaana la yunfiqu alayhi doonte ne du dépense ci kooku li annahu abdun lahu baad ndax ba tey gis nañ la jaam la ñeel ko ba tey wa yustahabu ixraajuha ida tala al fajr min yowmi al fitr sopp nañ ñu génne ko bu fajar jotee ci bisu iid ba wa yustahabu al fitru fiihi bisu iid boobee sopp nañu nit ki dog ay lekk dara xabla al xuduwi avant ngay xëy ila al musalla te fa ñuy julli wa laysa zalika fi l adha loolu nag nekkul ci tabaski wa yustahabu min fi l idayni sopp nañ ci ñaari iid ya an yamdiya min tariqin mooy mu demee ci benn tariq ci benn yoon wa yarjia min uxra daal di dëppee ci beneen yoon mbokk kon fii day wax rek ci ne sopp nañu zakatul fitre ñu génne ko ci bisu it bi ci it booba mbokk lu ci bari nit ñi seen dund benn la woon ñoo bokkoon liñ daan lekk waaye gis nañu ni lu ci bari tey suñ jamonoy tey ji soo bàyyee bi bisu it bi nga génnee ko loolu lu baax la waaye génne woon ko avant moo gën mu des nag beneen masala ndax mënees na koo génne ci xaalis loolu ixtilaafu ma la waxoon ca kaw moo ci nekk am na borom xam-xam yi la ëpp ca ñoom dañu ne dund la ko yonent bi doon génne ku koy génne dund nga koy génne am na ñeneen ci ñoom ñu gis ne déet lii dañ koo def ngir njëriñu faqir yi su dee ne faqir yi la gën ci ñoom mooy xaalis bi jox leen xaalis ba mooy la nga la gën ci ñoom ca bu boobaa it day fekk ne dund bi yomb na boo ko joxee xaalisam su ko neexee dem jënd ko dund su gisee leneen lu gën a nekk priorité mu jënd ko ci loolu ixtilaaf la ci borom xam-xam yi loolu kon li wóor mooy ñoom ñépp dëppoo nañ ci ne mënees na koo génne benn fan wala ñaari fan avant it bi di jot am na nag ñu ko yóbbu ba genn wàllu weer ga sax waaye diggante daal bu ñëwee deux jours moo des ci korité ñoom ñépp dëppoo nañ ne mënees na koo génne ba baa ngay xëy dem ci jullee korikaay ba loolu lay wax ci wàllu zakatul fitre boobu gannaaw ba nag lay wanne ni bu dee korite jot na sopp nañ boo xëyee jour boobu bala ngaa julli ji nga lekk dara bala ngaa julli ji nga lekk dara ndax wane ne kon yàlla kat koor ga ma santoon woor naa ko ba mu jeex tey maa ngi ne ñëw ak sama dog mi ngi noonu mi ngi may fàttali benn benn xale daa ñëw benn korité xam nga Sénégal moom ak suñu juuyoo korité yi mu ñëw fekk imaam mi ngi ndékki mu ñëw daal dina ma imaam sam papa nee na ndax wari ngeen ma ne ko am boo demee ne ko fekk dama fekk imaam muy ndékki waaw ala kulli xaal loolu moom dañoo bëgg nit ki bala ngaa dem korité nga lekk boo wane na tey jii moom wóoruma doo ko dem korité amma nag bu dee ne tabaski la yonent bi alayhi salaam doon def mooy bis la boo xam ni dañ cee war a feetu feet gi mooy ñu rey gàtt kon bu ñu lekk dara nañ dem ba la ñuy jëkk a lekk bokk ci ci tabaski bi loolu mooy la nga xam ne mooy sunna ca la waxit ne it moom sopp nañ ci booy dem boo jaaree mbedd bi booy ñëw nga jaar beneen mbedd loolu kon bokk la tënk ci wàllu jullit it gannaaw ba mu la waxee ñaari zakat yu mag yooyu mooy zakat ci alal yi ak zakatul fitre te loolu it di mbaaxu borom bi subhanahu wa taala mooy jullit bu nekk chaque année da ngay génne zakat góor jigéen mag ndaw chaque année jullit génne zakat zakat ba ca gën a néew mooy zakatul fitre mooy xale beeg mag beeg góor ak jigéen daañ ko génneel zakatul fitre ba ca gën a néew mooy deux kilos wala deux kilos cent chaque année nga génne ko loolu moo tax jullit ñépp dañoo bokk ci ñuy joxe zakat yal na yàlla boole ñu nangul adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli haal kon incha allah su dee ne am na ci yeneen laaj yu des ah bismillah naam alayhi salaam waaw ala kulli xaal loolu de ñu ngi ko fi wax toujours moo di ne ne ci li borom xam-xam yi mujj gis mooy xaalis bi boo ci amee six cent grammes ci xaalis ngay génne zakat loolu nag niñ ko waxe woon dimanche bi passé mën na wuute ci Dakar ak ca Fuuta ci Sénégal ak ci Guinée su ko defee daal lañ ca xam ne moom lañ ci mujjoon a dégg mi ngi doon tourner entre trois cent vingt cinq à trois cent cinquante mille fii ci Dakar loolu bu dee nemmee ko dañu jaay ko ci tëgg yi jaay xaalis piir nga laaj jël gramme xaalis su mu toll suñ la waxoon tey six cent soo ko multiplier par six cent mu jox la 320 wala mais 360 boo dee 500 mu nekk 300 loolu daal la ñuy wax ci wàllu googee amma différence su taux yu mag yi ngeen ciy dégg loolu waxoon nañ ci dimanche passé wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam mu ne mango mango a rasul sallallahu alayhi wa sallam daawul jël zakat ci li ñuy tuddee ay fruits ak i légumes yonent bi alayhi salaam musul jël ci loolu zakat lam daan jël zakat mooy la nga xam ne dañ koy natt di ko peser loolu moom ak i saxaabaam loolu lañ daan jël zakat su ko defee ka nga xam ne dafa yor toolu mangoom kooku sarax lañ koy sant mu génne ci toolu tamaati sarax toolu sable sarax amma nag pour di ko natt nisaab di ko génne loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musul jël zakat ci li ñuy tuddee alxudrawaat musul ci jël zakat wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ganaar kenn du ci génne zakat ak lu mu bëri bëri allahuma la dul nga jublu ca commerce su dee dañ caa jublu di ko jëndi di jaay su boobaa day dugg ci beneen mbir mooy wàllu commerce la dugg amma ki nga xam ne daa amoon ay ganaaram yu mu yar nii rek ganaar yooyu lu mu bëri bëri bëri zakat du ca war fi yéeg jëlu ko teg ko ca place jublu di ka jaay sa boobaa it dañ naan il faut mu xaar leen ba déwén pour zakat doog ca war mi ngi noonu leneen lu dul yii ñu la wax muy xar yi bëy yi nag yi giléem yi ci yeneen jur yëpp zakat waru ca ki amoon junniy fas zakat waru ko ay mbaam zakat waru ca lu dul kenn ci sahaaba yi abu darda wala abu zar benn waaye ñëw na laaj ko ne ko ñu dañuy am mbaam yu bëri loolu luy zakata mu ne zakata mbaam la xawma ko waaye nag xam naa fa man yaamal misqaala darratin xayran yara waaw mooy daal loo def ci lu baax moom da da nga gis yool kon it boo nekkee ci di yar loo xam ne zakat wóoru ca faqir yi yëg na yow mi kat borom alal nga ngalawaay di ca jël aqu faqir yi di leen ko jox loolee tuyaaba ju rëy la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam bismillah waaw waaw gerte dañ ciy génne zakat ndax borom xam-xam yi dañ naan loo xam ne mënees na koo jël di ko denc di ko lekk dañ ciy génne zakat looloo tax biñ ko indee suñu réew mi it borom xam-xam yi ñu fi fekkoon boole gerte ci dañuy génne zakat wallahu subhanahu wa taala alam waaw kon ñu mujj ci mbokk bi rek bismillah naam waaw waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu donc ci jamono géej gi maanaam bu fekkee ni mel ne ak mel ne mur ak tool yi donc donc bi bu njëkk léegi li ñuy daan dundee maanaam tey boo yore dund boo bëggee ci jaay jàpp boo ko joxee dund dafa lay jox yàpp boo demee ci jaay jàpp boo ko joxee ci boo ko joxee loolu loo soxla daal ci jaay waaw trop waaw waaw mais seulement nag bu la joxee ceeb bi bëgg yàpp boo demee doo mën a am yàpp loolu léegi da ko am quoi léegi nag may laaj est-ce que kon léegi kon li gën a nekk maslaxa ci bi mooy mooy xaar bi nga xam ne bu ko changé daf koy changé waat ci ci quoi ci jox nga ko ko ala kulli xaal su dee ne dañuy àtte xel moom zakat xaalis bi ku ne xam ne lu moo gën problème bi kay mooy ndax lii dañ koy tuddee taabudiya ñu def ko ni ko yëriñ ci bi waxe wala dañuy xool maslaha fuqaraaw yi bu ñu xoolee masala fuqara yi moom laa shakk ne ñaari borom xel bu ñu wuute ne joxe xaalis moo gën ndax waa ji bu jotee xaalisam ceeb baa ngi nii ci bitig bi bu ko neexee dem jënd ceeb léegi dem jënd la muy ànd ak ceeb loolu moom mi ngi noonu ba moo tax borom xam-xam yu bëri yu mujj yi ñoom dañuy gën li génne zakat masala na am na ci kenn ci borom xam-xam yi nekk Koweït day wax ne moom fekk ne benn magasin ci Koweït xam nga soo demee suñu àll bi ba fii ci waa Ndakaaru am na fi caañun yoo xam ne ba tey zakatu dugub bi seen bàyyi doon génne moom la ñuy génne dugub donte ne kër gi mën nañ toog ay weer kenn du fa lekk cere mais zakatu dugub la ñuy génne soo demee arab it aadama bi dañ koo dañ koo taamu ba zakatu tàndarma la ñuy génne mu ne moom fekk na benn magasin nee na gars yi jënd tàndarma ñi ngi rang nii bu ñu rangee masalan ñëw jënd tàndarma bi kilo deux mille suñu génnee faqir yaa ngi rang nii ñu daal di koy jël jox ko faqir yi borom magasin am na beneen portefeuille ay balance nga fa faqir yi bi ñu yéree mu jënd ko ci ñoom 1500 teg ci biir magasin bi borom alal yi ñëw jënd 2000 jox faqir yi faqir yi jaay 1500 mu ñëwaat ci magasin nee na dañu mën nañ faa yendu valeur bu ay centaine de mille yoo xam ni faqir yi dañuy nibbi ak seen xaalis borom alal yi ñëw joxe seen xaalis léegi commerçant bi am moom double bénéfice ci seen kaw mu ne nag kon li gënoon nekk xel mooy yow bala ngaa jël 10 kilos tendarma muy 20 mille nga dem jox ko faqir moom mu jaay ko 15 mille te ngaa jël 20 mille jox ko faqir bi rek mu nibbi loolee kon mbokk bu ñuy atte xel moom sikk sàkk nekkul ci ni la nga xam ne ni mooy joxe xaalis mooy li gën amma nag borom xam-xam yi nga xam ne dañoo jàpp ni ñoom dañuy jàpp li yeneen ci bi doon def dañuy def loolu waaye ñi ngi rafet njort it incha allah ni lu ci waay def yàlla subhanahu wa taala dana ko ko nangul maadaama ay borom xam-xam yu ñu naw seen xam-xam ci umma bi nangu nañ ko ca ñu jëkk ak ci ñu mujj mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw